ginnaw ba ñu joxe seen askan lu tollu ci 180 kits conseil de quartier bu an Pêcheur de ñoo ngi wéy lu ñu mel ñeel xex jangaro ji di coronavirus ba tax ñu génn lu tollu ci 1080 masques séddale ko askan wi fa yéwo Pierre Camara di sen jitt ci ay ça fait trois semaines dañu décidé ya ah, joxe suñu participation suñu contribution si euh, Covid 19 en aidant en sensibilisant en informant si nous jógee nous dañuy gënd euh, masques 1000 hein, pour distribuer le si biir quartier bi bu ñu 1080 euh, masques 1080 masques en train de distribuer gratuitement aux populations parce que c'est avant tout et après tout une affaire de communauté Waouh, état bi c'est jàpp institution yi aussi, mais surtout communauté C'est c'est dans ce cadre que nous def opération bi distribuer gratuitement un masque aux populations du quartier de Hann Mon moom ba di xamlé né lépp lu mu lacc ndimbal dinañ ko def ñël bi lé xéx. Nam sax ñoo ñaan Covid 19 bi tel fi juggé. bu vraiment vraiment euh, dafa laaj yenn action ñu def ko dinañ ko def aussi waaw parce légui occasion bi dañu permettre ñun waa kon bi xamné ñoo ngi lutte contre Covid bi aussi Boudé affaire bi euh, koul

mais action bo xam man ko def à notre niveau pour lutter contre Covid bi de ko def inshallah ginaaw lolu nak mo ngi ñaax askanu Sénégal rawatina waa ANPECHR 2 ñu taxaw tém ku ci nekk jël say matukaay ngir jàmmaarloog jàngoro ji coronavirus. lu ñuy wax sensibilisation responsabilisation responsabilisation surtout surtout surtout surtout parce que affaire dafa dem ba une affaire de question de responsabilité individuelle nit connaissons ne moo war a ak Covid bi Arce Bop, Arce Njabot, Arce communauté Arce Areo. parce que ça doit être avant tout une affaire de responsabilité individuelle parce que geste barrière si on ah, suñ faire, defee rek ah, ah par la force de wàññeeku.